pour ngeen nekk dans le bain de li ñuy waxtaane ak gravité li ñuy waxtaane may jéggalu nag ci sama qualité exposition à venir parce que dama préparé woon sama ay notes mu réer donc je serai obligé dire rapport bi di wax ci wàllu chiffre pour bañ a juum am na yu ma jàpp mais am na yoo xam ni war naa ko xool c'était l'objet des note que j'avais j'ai perdu mais dinaa jéem a def un effort de restitution de toute façon euh, documentation bi prouvé li ngeen gis ci documentaire bu ndaw bii yëpp euh, moom laa leen bëgg a partager plus cette vidéo elle-même nga xam ni rush la amul logo amul dara ku nekk mën a traité nu mu ko neexee léegi la première information mooy Sénélec ne produit que 26 pour cent euh, Moustapha Sénélec ne produit que 26 pour cent de. l'électricité qu'elle nous vend maanaam courant bi ñuy Senelec di jaay ñaari fukk ak juróom-benn yi lay defar ci téeméer bu nekk la ca des da koy jënd ci ay producteurs indépendants te ña ñuy waxee producteurs indépendants ñi ci ëpp ay tubaab lañu ay français ki italien ki américain ak ay turc ñoom ñooy jaay Senelec courant ñay làqu ci gannaaw ñooñu nag. ay ancien DG Sénélec ku mel ni Samuel Sarr ay ancien ingénieur Sénélec wala ay conseiller à la présidence yu mel ni Arona Dia wala ay homme d'affaires yoo xam ni banque da di fayal seeni i bor comme Khadim Ba ak ñu bëri ñoo xam ni mënuñu leen lim ñoom ñëpp ñoo nekk ci gannaaw producteur indépendant yooyu donc information bi mooy 74 pour cent ci courant bi ñuy consommer ñun la Sénélec di jënd te mu ngi ciy dépensé at bu nekk quatre cent cinquante et un milliards cent cinquante et un mën na defar ay centrales yi centrales ça dépend ci dimensionnement wu centrale yi parce que boo jëlee centrale bu mel ni centrale wu West Africa Energy bi nga xam ni Samuel Sarr Aaron Dia loolu moo nekk kàddu ki nga xamante ni moom moo di euh, Clédor Sène moom nag dafa àddu ci euh, mbir mu am solo muy euh, wàlluma courant bi mm-hmm. ndax moom li mu xamle mooy courant fii ci Sénégal du fi mës a yomb ndax Sénélec si jëm boppam amu si lu dul 26 pour cent boo xamante ni moom la moom 74 pour cent yi da koy jënd te mm-hmm. fi ñu fi ñu wax ne foofu la. courant ba ci boppam di jógee mu fay jógee vingt cinq pour cent vingt cinq francs euh, homme du moins moom euh, dañ koy jaayaat ki nga xamante ni moo di Gambie te ñu ngi koy jaayee li nga xamante ni moo di euh, cent trente cinq francs CFA maanaam loolu noonu buñ ko saytoo day day nekk ay revenu yoo xam ne seneen rek lay ñëwaat waaye terewul ñun suñ jëm bopp dañuy jëndaat li nga xamante ni moom moo di courant moo tax courant mënul yomb fii nii ndax Senelec ci boppam day jënd di ñu jaayaat loolu moo xam ne nekk na mbir moo xamante ni déjà warul ndax euh, avant tout dañoo war a xool li nga xamante ni moom moo di intérêt pays bi ñu def ko waaye defuñu loolu noonu dañoo def li nga xamante ni euh, daf leen a arrangé maanaam di jënd di ñu jaayaat loolu moo tax euh, courant fii Sénégal du fi yoon courant du mësa yomb Sénégal boo dégloo daanaka révélation yi nga xam ni Clédor Sène daal dina koy def mu ñel euh, foofu la di euh, Sénélec ak sax ki nga xamante ne ni moo di le président euh, ci waxtaanam tamit daal dina waxaat li nga xam ni moo di lu ni mel pour dire que rek réew mi fi mu toll nii daanaka gestion bu ne wala maanaam yorin bu nekk war nañ ko saytuwaat bu baax a baax parce que moom def na ay révélation def na joxe na ay tur ñu ci baree bari seen tur mi ngi ci am na ñoo xam ne nee na mënu leen a sax lim maanaam moom xawma naka laa ko mën tuddee mayu ko muy révéler seeni tur pour diir que ni def na ab alerte te li mu bëgg mooy que ni mbir mi ñu jël ko teg ko sur la table ñu waxtaanee ko ñu trouver solution ba nga xam ni daal scandale bii nga xam ni jib na lu ñeel wàllum Sénégal rek ñu régler ko parce que tamit bu lépp weesoo euh, courant mooy lépp Sénégal toll nañ foo xamante ni nii ci wàllum courant moom dossier boobu dañ ko war a jël boucler ko tegee ko de côté moo tax moom génn na def na ay alerte nag di ci euh, wax li nga xam ne nag mooy les autorités ñoom itamit nag ñu jub si parce que comme li ñu wax rek fi mu toll nii Sénégal toll nañ foo xam ne comme que nañ koy euh, jubbanti moom ci domaine yëpp la war a doon lépp li nga xam ni rek lu ñu war a xam la ñu wax ñu lépp li nga xam ni yoon la mu def liggéeyam yoon daal di def liggéeyam ngir tamit euh, dëkk bi mën a ñoŋ mën a egg fi nga xamante ni ñun fa lañ ko déggee mais de gauche à droite ñuy def ay révélation wala sax di def li nga xam di dégg ay scandale de gauche à droite démb rek saa Touba mi ngi ko doon wax loolu noonu maanaam sénégalais ñoom dafay dem ba affaire yi dañ koy jàppee loo xam ne rek tendance la parce que chaque fois dañuy dégg yu mel noonu ci domaine bu nekk lay doon léegi nag boppam mbir mi ñu leeral ko ba mu leer nañu ñi ki def bu yoon waxee ni carrément def na moom ci boppam la ko fa war a fekk na ko ci fekk parce que ñun loolu lañ bëgg parce que tamit mënuñu woote li nga xam ne moo di rupture changement ba noppi tamit chaque fois ñuy dégg ay scandale chaque fois ñuy dégg ay révélation yoo xam ne après mbir moom day dem ba benn instant dootoo ci dégg ci dara kon moom nag alerte bi nga xam ne nii def na ko ah ñu ngi ciy ñaan autorité ñoom tamit ñu taxaw si parce que mbirum euh, courant bi moom war nañ ci ndax cher na torop torop dafa metti woyofal bi moom moo moo rawati moom moom moom diisal lañ ko war a daanaka nga yow sa fit nga am loo xam ci courant yaa nga fay courant man damay damay fay courant di loo ko damay participer di fay courant yow dëkk bi fépp a métti ñëpp koy yëg yow man rek nga tane si réew bi man rek nga fi ëpp baat nga naan da fay courant et le pire dans l'histoire nag mooy ay doomu Sénégal ci boppam. Mhm. ñoo nekk euh, gannaaw 74 pour cent yooyu noonu ñuy wax euh, ndax moom ci jëm dafay wax ni que mm, yeneen yeneen yeneen nationalité yi. Mhm. ci jëm ñoom la ñuy ñoom la ñuy jàpp ne ñoom seen jëm bopp ñoom moom pourcentage yooyu noonu alors que doomu réew mi. si mhm. boppam seen jëm ñoom moom li nga xamante ni moom moo di euh, pourcentage yooyu noonu ci biir Sénélec maanaam da lim ñi nga xamante ni ay directeur lañu woon ci biir Sénélec mm-hmm. ak ñeneen ak ñeneen mm-hmm. ñoo xamante ni ñooy ñëw taxaw tey jii nii taxawaayu euh, nekk ay euh, je veux dire investisseur ci biir Sénélec mm-hmm. di gagner ay pourcentage ci biir Sénélec alors que ni askan bi mi ngi souffrir ci li nga xamante ni moom moo di cherté courant bi mi ngi noonu nag gis nga mbir bi tant que ko cinquante cinquante yii nii du fi jeex te problème bi mooy dañoo ñëw di sulli dossier yoo xamante ne nii dafa jàlloon ba pare xam nga mbir moom tamit day day poser li nga xamante ne nii moo di problème donc nag moom li nga xam ne wax na ko Sénégal cinquante cinquante xëy na peut-être ak ci régime bii nii dina ci commencer di ci am mais li weesu moom. buñ ko euh, càmbaree fu nekk ci domaine bu nekk moom daanaka yu mel nii dañ ko ciy gis bu baax boo xoolee ñun ñooy nekk ñi nga xam ne mooy les perdants même bu fekkee ñun ñun ñoo ci war a bénéficier wu ñun ñoo koy produire à la fin ñun Sénégal luñ ci gagné dara te moom ne loolu nekkul li nga xamante ni nii moom dafay yëkkati euh, réew wala dafay jëmale réew sax kanam looy def lu ne na ci sa intérêt nekk. noonu la mm. demee yàlla sax mi koy jaamoo suñu intérêt moom moo tax luñ ciy gagné bëgg a dugg àjjana yooyu noonu moom moo tax kon nañ ko xool nañ ko xoolaat bàyyi di ma ree nag maa dàq rey foofu. boo réew lu may def damay jooy temps yi da nga am fit ay fay courant yooyu nga fi yooyu nga fi déclaré waaye baax na. courant dafa cher nag dëggantaan. ah non non non dafa cher dafa cher dafa cher tey jii nii ku mu war a ku mu warul yëpp. voilà xam nga ne carrément affaire yi moom. dafa dafa fi ngay chargé fu muy defee signal di di la signalé que ni jeex na moom. dafa dafa dafa dafa kii quoi dafa doy waar dossier bi moom war nañ ko topp ba mu jeex parce que tamit metti na de te lépp ci askan wi rek lay teguwaat seen ndodd moo tax. dañ kayit nañ ko tuddee diisal rek benn yoon. <laughs> noonu la tur boobu lañ ko war a jox moom. <laughs> moo gën moo gën a noppale daal. <laughs> boobaa mhm. kenn du kenn du wax ne oyofal la ñu waxoon ba pare mhm. ñëwaat ci wax si diisa mhm. euh, kon nag euh, Fatou loolu moo nekkoon li nga xamante ni moom moo di euh, seen Sénégal matin di jaajëfal bu baax nag mbokki internetu Télé Sénégal TV si ànd bi ak teelu seen émission saa su nekk bu 9 jotee macha allah di leen di jaajëfal bu baax nag yéen moom lu leen jaajëfal rek doyul di jaajëfal nag sama naataango bi. <laughs> ba fi nekk woon mu ñaaw di la bàyyi rek nga tàggatoo ak mbokki internet yi. non man ak yow benn lañ duñ ñaaw loolu la yàlla def maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñu doon suivre ah, di jaajëfal aussi réaction yi nga xamante ne nii ñi ngi koy def ci euh, direct bi di la wax rek ñu la tey la ñun gëj nañ laa dégg de fan yi da nga ñoo bàyyi de man dama laa mere woon sax dama ne du ma la tontu ndax man dama laa gëj a dégg xaw ma ci loo ne semaine bi moom moom xawoon naa la mere di la jaajëfal bu baax a baax di joxaat dig daje nag ba ëllëg incha allah ci biir euh, beneen émission Sénégal matin